waaye ñu bàyyi xel ci nit ñi ñuy yàpp bàyyi seen sàmmonteeg seeni àq ba mën leen a indi ci jàmm waaye nag am na foo xam ne bu fa eggee xam naa du ñàkk ne autorité yi dañ taxaw ndax ñoom seen wartif mooy taxawu askan wi te xam naa ni euh, am nañ yéene taxawu askan kon nag loolu defe naa ni dañ ci bàyyi xel bu baax